asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñuy amaat mbégte bu baax a baax te amaat kontaan te lool suñu xol ngay sedd ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ba nu jàpp léegi mi ngi bëgg a yàgg te bàyyi wunu benn yoon kenn amul seen fay yàlla mi yor fay yàlla na la fayal boppam mbégte rek laa am kontaan te laa am xol bu sedd rek laa am ci jàkkaarloo waat ak yéen fii ci seen émission bu mag bi nga xam ne mooy émission cant gi nee naa la cant mooy développement gën di investissement moom rek amul pertement kon sant yàlla rek a wóor waaye nag ñuy tambali ci nuyoo bi tàmbale ci ziar bi ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa diine njabootug Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul njabootug Cheikh na Cheikh Saad bu waxeer ci njabootug sunu maam maam Limaamu Laay njabootug sunu maam maam Bu Kunta Ndiassane njabootug sunu maam Cheikh Ahmed ba ci leen ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay tey di leen ñaanal suñu kilifa diine yàlla ba leen fi guddal seen fan te wéral seen i cër tubarkàlla macha allah waaye nag bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool bu ngeen njaboot gi ba ca kanam a kanam a kanam a kanam a kanam tubarkàlla di nuyu ñi nga xam ne ñooy sunu nawle yi nga xam ne yàlla dafa dogal caabi féete leen ginnaaw ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu àq te di leen baalu àq te di leen ñaanal jàmm waaye nag sunu nawle yi nga xam ne it yàlla dafa dogal kala macha allah ñu nekk ci lalu hôpital yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla saafara seenu tawaat ba ñu mën a jug ci dem ak salaam mën a delluwaat ci seen njaboot tubarkalla macha allah di am mbégte di am kontante te nga xam ne ñu ngi toog seen kër bàyyi lépp bàyyi fépp bàyyi ñëpp jàkkaarloog ambassadeur Cheikh ci Thioune bi ambassadeur des enfants hydrocéphales du Sénégal xale bu baax bi nga xam ne moo jàkkaarloog yéen fii ci télévision bu mag bi nga xam ne mooy la 2STV télévision bi nga xam ne tubaarkàlla wër na àddina foo mën a nekk ci àddina juróom-ñaar rek tubaarkàlla boo ko bëggee jàpp rek boo ko capté da koy mën a suivre mën a xool suñu programme commencement ba fee te dara du tàng dara du kale lépp day jàll ni direct waaye tubaarkàlla macha allah liggéey bi am solo boobu dañu koy gërëmee tout personnel de la 2STV kon nag tubaarkàlla damay tàmbali ak yéen ma jaale suma papa suma xarit alaaji Samuel saar mu baax mi nga xam ne dafa ñàkk way juróom bu jigéen bi xam ne sunu maama sunu xarita sunu soppe ñu ngi koy ñaanal yàlla na yeewoo àjjana incha allahu rabbi ñi ko koy ñaanal te am nañ ci yaakaar waaye nag Samuel Sarr ku ko tudd tudd Cheikh Saliou Mbacke Xaadim Rasul ñu ngi koy di ko jaale njabootu Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne Samuel amul woon ku dul ñoom waaye nag di ko jaale bu baax a baax sunu sunu mbokk politiciens yi féetoo ak moom parti bokk moom PDS ñu ngi leen koy jaale waaye nag di ko jaale bu baax a baax le président de la république son excellence alaaji Macky Sall mu baax mi suma papa suma xarit waaye suma yaay jaamarem fay sàll du lu ko fàtte benn yoon moom it ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax léegi rek bi ma fay jógee laal ni bàyyi ñu yegsi ci dëj bi fii nga xam ne mooy fa lañ koy saraxee fii ci almadi ba tax na tubaarkàlla macha allah yàlla yàlla euh, sotti li nga xam ne mooy euh, ndox mu sedd ca moom waaye nag mu mu mu mu mu fekkee la nga xam ne mooy njariñul ay doomam nii way juram bu jigéen bi fekkee njariñam way juram boobu tamit yàlla na ko yàlla xaare àjjana yéexanu bu baax a baax ca loolu la ñuy jaar di waajal li nga xam ne nag mooy màggalu Kazu Rajab tubarkàlla macha allah balaa ma ciy xuus di ci ñëw di ci yaatal damay ànd ak yéen ñu seeti ki nga xam ne mooy Aliou Afia mu teral ñu ci Serigne Fall waaye teral ñu ci bisu màgg bi nga xam ne mooy bisu Kazu Rajab ñu bégal ci suñu xol yi ma bégal ci sama bopp bégal leen ci bu baax a baax tanu dellu soir bisimilah yaay sam su daan yàgg nga daan am ci moom mbégte bu baax baax te am ci moom kontaan lool loolu sunu xolal day cedd si moom yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax kooku mooy yàlla aafiya mu baax nit ñu ko wax tubaarkàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla na jàmmam yàgg ndaanaan la sikarkat la waykat bu mag la waaye daf nuy bégal ci Serigne Touba ak njabootam waaye rawatina ci Cheikh Fallou Mbacke ndax fa la féete ku ko xam xam digganteem ak Serigne Afia Mbacke tubaarkàlla macha allah euh, euh, euh, mi ngi lay ñaanal Aliou Afia yàlla na nga barkel yàlla na nga barkeel ñi ngi lay ñaanal yàlla yàlla wéral baat bi te guddal fan yi bu baax a baax loolu nag ñu ngi koy bëggalee ñi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Fallou Mbacké kulim juum njabootu Serigne Fallou Mbacké taaw yi Serigne Fallou nga xam ne mooy xalifaam di Serigne Abou Mbacké ba ci ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy caatam tubarkàlla fàttewuñu kenn waaye nag du ci ñuy suñu papa suñu xarit ñun bu ñu njabootu Serigne Fallou moo suñu bunt kooku mooy Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom Makarim al Axlaa Fallou Bousso ñi ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam suñu bàyyi la suñu xarit la sunu sëriñ la yàlla na jàmmam yàgg mi ngi nuy waajal nag bu baax ci màggal gi ndax ku ne xam na ni sunu digganteeg doom moom ju baax jooju di soxna Mambar Mbacke Mambar Mambar mu Serigne Fallou waaye Mambar mu Cheikh Abdoul Karim diggante samedi la rek ak dimanche bis doxu ci Mambar sunu Serigne la sunu jigéen la sunu xarit la ba tax na ko si rajo bi ñu ngi koy waajal mbokkum yaayu Mambousa Mbacke moom it ñu koy ziar di ko nuyu bu baax

bëgg sëriñ fàllu ba jeex tàkk ci moom Adja Ngoone Njaay loo ko wax lu dul sëriñ fàllu rek waxoo ko dara sunu yaay jooju waaye nag Malick Fall Malick Fadel Fall Malick mu baax mi chargé communication la bëgg sëriñ fàllu lay nooyee sëriñ fàllu lay doxee ba tax na Malick moom dem na ca lëndi di waajal màggal gu tedd gi di màggal Kazu Rajab ñu koy ñaanal moom it li ci yéene ak li ci jublu yëpp yàlla na ko ci sëriñ fàllu waaye nag kuy soppi sëriñ fàllu baa nga jokk ci fi nga xam ne mooy njabootuk Cheikh Fallou Mbacké la Rasul xamal ne bis bi sa bis la yaa ko moom waaye nag képp ku jullit képp ku murid rek bu génne sa bopp ci bis bi Serigne Fallou murid yëpp la bégal fàll lu jullit yëpp la bégal li ko waykat bu mag bi way rek ne ko Serigne Fallou yaay Sénégal loolu moo am Serigne Fallou Mbacké mooy senegal kon bu ngi senegal Sénégal génnewuñ ci murid génnewuñ ci xaadar génnewuñ ci laayeen génnewuñ ci tijaan génnewuñ ci ñeseen génnewuñ ci kenn kon nanu xam ne bisug Serigne Fallou Mbacké gii bisug Sénégal la waaye bisug monde entier la ndax xam naa ay wëllëre yu baax yoo xam ne ñu nga jóge ba Angleterre ñii ngi jóge Amérique ñii ngi jóge France bàyyi lépp ngir ñëw teewe bisu màgg boobu nga xam ne muy bisu Serigne Fallou ji kon yàlla nañu ko teewe ak jàmm danañ ca teew incha allah ànd kook sunu soxna su baax si muy soxna Penda Aydara Aydara Chérif moom nga xam ne tubaarkàlla Cheikh Abdou Karim Mbàkke la bëgg ci xol bi danañu ànd ak moom dem teewe li nga xam ne mooy màggal gu mag bu baax baax borom dar géej mbokkum yaayu Faat Seck sunu yaay ja Aminata Diop duñu ko fàtte benn yoon yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax noonu la Serigne Babacar Sy ak waa këram yàlla na jàmmam yàgg tubarkaala ci loolu la jaar dem seet ki nga xam ne mooy Maba Ngom moom it danoonu teral danoonu bégal ci Serigne Fallou Mbacke xaadim rasul ndax kasu rajab la waajal bisub Serigne Fallou bi duñ noppee doog a jàll ci appel bi Maba bismillah ami sudan noo ngi siyaare lay siyaare ñoo ngi lay siyaare yadi sam su soodaan Sëriñ Fallu Mbàkke Baay Sëriñ Moodu Buso Jaay Baay Sëriñ الكريم صللوا باي سير صليب بللوا بسم الله مينان يلا ميت رقمان المجوب بسودان دغلو باي غمار بسم الله مينان سنفلم بلمين رقمان باي ميت sëriñ mami sëñ Fallu docteur Bomba bayu mbeeno mbar mu mel ni jiwaay dun ka ni ma xee ba may ñi nga am ci moom mbégte bu baax a baax te am ci moom kontante loolu kooku mooy Maba Ngom bëgg Sëriñ Fàllu ba jeex tàkk ci moom tubaarkàlla loo ko wax lu waxoo ko Sëriñ Fàllu rek moom jàpp na ni waxoo ko luy dund ci kaw suuf Sëriñ Fàllu la gëm moom la yaakaar moom la loo waaye doyloo bu baax a baax a baax Cheikh Abdou Karim Mbàkke ñu koy ñaanal moom it Maba Ngom yàlla yàlla wéral baat bi tey it barkeel li nga xam ne mooy way te baat bi mën a ànd ak cat ànd ak li nga xam ne mooy muslaa yi mu nuy gën a bégal nag ci Serigne Fallou waaye duñu gën a bégal ci ka nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootam ñi nga am ci moom mbégte bu baax a baax waaye wow na dañu ko may suñu xarit suñu soppe Abdoul Ahad moom xarit suñu soppe dana ko fekk Italie mu teral nu bàyyi lépp mu ànd ak ñun di xëy ci ñun di gont ci ñun kooku mooy Abdoul Ahad Guèye nit ku yàlla baaxal tàggkat ci Serigne jaa ngi noonu bëgg Serigne Fallou ba jeex tàkk ci moom yàlla na yàgg di ko nuyu nuyu nit suñu saasu baax boobu nga xam ne maga nga foofee ca Milano di Oustaz Pape Anne ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm conférencier bu mag baa ngi noonu dina war a àddina gépp teral jàmm ñi bégal jàmm ñi ca ka nga xam ne mooy Mouhamadou Rasulullah kon tax na oustaz ñi nga am ci mbégte waaye nag suñu mbokk Baye Fall yi nekk Milano nga xam ne tey xam naa ne duñu lekk duñu naan ñetti fan yi des suñu kanam ci màggalu Kazu Rajab bi duñu dara lu di waajal bis bi leer na ma leer na ma maa ngi Sénégal jóge naa fa nekk ma fa instant bi waaye wóor na ma ni saal yi gën a mag ci Milano suñu mbokk Baye Fall yi suñu mbokk murid yi waa kër Cheikh Fallou Mbacké yi luwee nañ ko fay ci alal ju bari ngir màggal fa la nga xam ne mooy bis bu rëy bi bii di bisub Serigne Fallou noonu lañ koy màggalee ca Amérique noonu lañ koy màggalee ca France noonu lañ koy màggalee ca Gabon noonu lañ koy màggalee ca fa nga xam ne mooy Bénin di ko màggal ca Côte d'Ivoire di ko màggal ca Gambie ak ca Guinée waaye rawatina fii ci Sénégal yi nga xam ne fii la lépp xewee kon nag tubarkalla yàlla nañ ci dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci barke sang bu tedd ba di Cheikh Fallou Mbacké di ñaan suñu mbokk taximaan yi suñu mbokk particulier yi ñor seen oto bopp suñu mbokk kaar yi bus yi njaganjaay yi sëñ Fallou moo ni toll sëñ Fallou mooy Sénégal bu wootee Sénégal àddina juróom-ñaar ñëpp ay fàq da wuy ji waaye nañu xool li nga xam ne mooy yoon wi te respecté li nga xam ne mooy condition yi nga xam ne moom la ñu teg respecté li nga xam ne mooy code de la route ba ñëpp mën a dem ci jàmm dellu soit ci jàmm ki woote borom yërmande la bu sañoon bu doon sagom kuy dem ci bisam bi da ngay dem ci jàmm dellu soit ci jàmm nanu fexe jàppalante rek te yërëmante rek te mayante ko rek ba fexe ñëpp dem ci jàmm dellu siwaat ci jàmm jaru xëccoo jarul njëkkante ñëpp danañu yegg bu soobee yàlla ñëpp danañu dem ci jàmm danañu yegg ci jàmm kon jaru yàkkamti jaru daw bay daanu nanu ko teg ci yoon rek te joxante ci respectante suñu mbokk chauffeur yi ñu yow seen oto particulier nanu xam ne yabuñu ay xar yabu yabuñu ay ginaar yabu ñuy yabuñuy yabu ñuy mbukki ay nit lañu yar ay ba banni aadama ay doomi aadama yor xol yor bakkan yor ruu ñoom la ñu yàpp ci saxaan na mooy seeni oto ñu daw nànk te yegg ci jàmm ak salaam màggal màggal gi ci jàmm salaam dellu siwaat ci jàmm ak salaam ci barke sang bu tedd ba sama yaakaar yi teeg ëllëg Cheikh Saliou Mbacké Khadim Rasoul di ndokkale nag sama sang bu tedd boobu du jaamu Cheikh Saliou Mbacké Cheikh bi ci cuun ci bis bu rëy bi nga xam ne moom la ñu génn barke dem mu njaay àddina juróom-ñaar di ko waxtaane mu cant gu mag googu muy sant Cheikh Saliou Mbacké ànd ko ñun waa këram di cant 17 avril bi sang bi maa demb bu sa mboori kulab sa njaay sagalati nga sa waa kër sagalati nga say nawle waaye sagalati nga askanu murit sagalati nga diine lislaam ñi ngi lay ñaan yàlla na ko gën a mën yow bu ñuy wax ci yow fii la ñuy fanaan te liñ dese ci waxtu dana looy ñaanal loo man ren yàlla na nga mën déwén lu ko raw junni yoon ci barke sa yaakaar sunu yaakaar teg ëllëg Cheikh Salim Mbacke Xaadim Rasul ci loolu laay jaaree nag du nuyu mbokk naa ne ñu waajal appel bu mag boobu nga xam ne mi nga am le 27 ak le 28 diggante Cambérène Yoff dañuy dem seetaan ki nga xam ne mooy koddu cawlaay mu bégal ñu ci maam li maamu laay ñu seddal suñu xol bu baax a baax te dellu siwaat ma teral leen balaa maa tàggoo génn koddu laay bisimilah xaddi yàlla ne waxam du dañ gëm leen ko Lay lay lay xam ni lii de wóor na ndaysaan suñu xol sedd na ñi nga am ci moom mbégte bu baax a baax soxna Codou Thiaw Laye ñi ngi koy béggee ñi ngi koy safoo ñi ngi koy sargal bu baax a baax di ko ñaanal jàmm waaye soxna Codou Thiaw lay moom it ñu ngi ko nuyu bu baax a baax Babacar Mbay Laay tubaarkàlla maam raan ndaanaan yaa ngi noonu bëgg maam li maamu laay ba jeex tàkk ci moom tubaarkàlla macha allah ñii lu na am rek di tagg sang bu tedd boobu di maam li maamu laay moo ne ko gënal ba tax boo koy ñaanal da nga koy ñaanal ca dooleem da nga la man Balla Gaye kenn du ko fekk mu toog nga di ko ñaanal ci ay tànkam ndax du du footballeur bu ko ñaanal ci ay loxoom ndax du basketteur ñaanal ko ci li nga xam ne mooy dooleem ñaanal ko ci ngembam ngir yàlla di ko mën a may ndam tubarkàlla macha allah keneen koy ñaanal it Omaro boobu ñëwoon di ko ñaanal ñaanal ko ci baatam ndax ci baat lay liggéey ci làmmiñ lay liggéey liggéeyul ci loxo liggéeyul ci tànk liggéeyul ci bopp liggéeyam làmmiñ la liggéeyam wax la liggéeyam animation la liggéeyam way la te lépp mu ngi jóge ci gémmiñ nit boo ko ñaanal da nga koy ñaanal ca la nga xam ne moom lay jariñoo ci lay dund ci lay terale ay soppeem waaye ci lay teralee boppam ba tax na ñii ñi ngi leen di ñaanal seen làmmiñ ñii tedd ñu am li ci tàgg sàgg bu tedd bi maam maamu laa yàlla na barkeel yàlla yàlla wéral baat bi bu baax a baax te yéen nag sàmmal leen seen bopp waaye nag sàmmal leen seen njaboot mbokk téléspectateurs yi ñu ngi jéggalu programme bi jamono jii ni mu demee moo waral émission bi day gàtt lool waaye nag lu mënul ñàkk faw mu am ñu ma ko waxee rek benn nen bu ko mbooloo bokkee doo ko omelette doo ko xam doo ko baxal da nga koy menes rek ko defee ku daal di soos waaye gërëm bu baax a baax réalisateur bu mag bi nga xam ne tubarkàlla saa bu ñëwee rek ñu yëg na ñëw na ndax ñu rek moom démb la tey soo a ñëw muy suñu xarit bi suñu soppee Ablaye saar mu baax mi Laye Sarr le grand réalisateur cameraman monteur réalisateur lépp la ab Ablaye Sarr yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax Ousmane Nouré ni duñ ko fàtte benn yoon yàlla jàmmam yàgg waaye Amadou mi ne ci son bi suñu rakk suñu xarit moom it yàlla barkeel yàlla guddal fanam te wéral ay cëram mama Nafi ci maquillage bi yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay bu baax a baax a baax émission tey bi nag mbokk ci spectateurs yi fii laa ko yemale incha allah gàtt na loolu nag euh, ko togg ciw cin da ngay jël la nga ci soxla rek togg la ko def nga denc baa nga maye ba tax na fii lañu ko yemale ba àjjuma ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf marhaban bikum shukran bamba am na sëriñ Muxtala ji may lil xaadatil ujóoru wal masaaliw bitii wal jasbi wa inmisaal lil xaadatil ujóoru wal masaaliw bitii wal jasbi wa inmisaal asaali wal la fi yukammilul amal yéene Bamba jaadi Seex Saaliw Seex Saaliw way Sëriñ Tuubaa yasal la yoonu murid jëfam ci Seex Ibra ak Seex gëj na ci yoon wi 1900 Sëriñ Madiba Sylla 87 Cheikh Saliou yeesal yoon wi seexal Cheikh Béthio mi teral na réew mi bambaay bi seexal na Cheikh Ibrahima moo ko seexal maleer ga feeñu woon joxoñ ko Bamba moo ko seexal bambaay bi seexal na Cheikh Mourou Bëgg moo ko seexal ma bàyyi woon mbokk ya toog di Bamba mu teg ca rakk ja Cheikh Anta Mbacké moo ko seexal mbokk yooyu wandeelu naan ko Bamba mu tegaat ca Cheikh Issa borom taw féex moo ko seexal bontam ga siiw na foofa Bamba juga tabe jigéen ñi mbay si jëf yàlla na tayuk sëriñ bi gàccel na dem ku mel ni Cheikh Amar jëfam la siw na sëriñ Tuubaa loo ko jëfal daraw nga jëf looy mbiram sabee ko daan na borom makaama borom kiraama ne leen jaraama maam Cerno Faati borom makaama borom kiraama Cheikh Béthio nee na Cheikh Bamba yow la way la war na mbaate doo morooma sunu magal gi mooy borom bi sëñ ñu baaleeral na yoon we Cheikh Béthio nee na Cheikh Salim Mbacké way ko war na mbaate doo morooma sunu magal gi mooy borom bi sëñ ñu baaleeral na yoon we Cheikh Salim Mbacké borom magal gi kañ ko war na Cheikh Bamba mooma sunu magal